te mooy jaxasoo buur Mbàkke sa jëjaaye te ngërëmul yàlla yi am na booba te dul buur rekk te mooy jaxasoo buur Mbàkke sa jëjaaye yàlla la nit dul doon feeg doonu la doorawu waaw waaw yaay mal ma yow noo Mbàkke sa jëjaaye sa jëf jaange yàlla la nit dul doon te doonu la ko waaw waaw héritage bàkk sa jëf jaange yàlla la nit dul doon te doonu la doon waaw waaw héritage bàkk sa jëf jaange yow jëf loolu la muy doon jëmmi sëriñ bi waaw waaw héritage bàkk sa jëf jaange bay def moom rek la dal joor waaw waaw ku la xam du la bañ tas Mbàkke sa jëf jànge sant damay delloo ba doo la xamul way waaw waaw sant damay delloo ba doo la xamul way waaw waaw sant damay delloo ba doo la xamul way waaw waaw bor ku ko may fu mu jaay Mbàkke sa jëf jànge yàlla yi rek moo ne jay waaw waaw sant la war na ki yaay mbàkke sa jël jànge sant nu war la mu nuy war yow la gën a war waaw waaw yow la tere teelee ji mbàkke sa jël jànge sant nu war la mu nuy war yow la gën a waaw waaw yow la fi may jëmi boppam jaam mbàkke sa jël jànge fekk ñi ngi koy mën ngay dolli noppi nu waaw ba dee ma kii laay. laay Mbàkke sa jëf jaagee. te ñu ngi koy mën a jëli. góorgóorlu góorgóorlu. waaw waaw. way la ba dee ma kii laay. Mbàkke sa jëf jaagee. kenn ma xam lay way ndéem. kenn ma mën a xam. waaw waaw. des na ci xam ndax yaa. Mbàkke sa jëf jaagee. Sëriñ Tuuba rek a daan seexal du ci am. waaw waaw. yaa ko defar doose. Mbàkke sa jëf yaa ngeen. jëf yaa di ki ko am. sagul sagul. sagul waay sagul gaa. jëf yaa di ki ko am. sagul waay sagul gaa. jëf yaa di ki ko am. sagul.

Bye. yow mi canti gi war ne sa xol li tey am seere woo yow la joxoon bor du fàtte teranga bu amul ku la may waa liggéey kala kar du jeexal sa tee waya dee def xanaa di nga ko ngir mu dolli sa wér Thank you. Madina, Madina, Madina, Madina,

waay rek waaw gan ñëpp a fandi yaay góor ga waay Fadim yàlla moo di waaw ci raay rek waaw tey ñëpp a fandi waaw yaay góor ga waay Fadim sabaxtu kaw ni laa ko nay mbiram waaw ngir tudd Fadim bis booba ñeel jawnam yàlla moo di waaw ci raay rek waaw tey ñëpp a fandi waaw yaay góor ga waay Fadim yàlla xarañ jëfam sut nay xalam tey nu ko def leer mooy leer ga feeñ maaram bu yàlla moo ni waa ci lay rek xalam tey na ko xamee waa yaay jooja waay xaalim iblis sori Amadou Mbacké yàlla jégal ci sunu waaji bu yàlla yaa fa tey xaadim defal ñu dee Amadou Mbacké iblis sori Amadou Mbacké yàlla jégal ci sunu waaji bu yàlla yaa fa tey xaadim defal ñu dee tamit tulo. mooy sunu waaji. Sadio Koule yëfee si yaram damay mbële. Modou Mbacke ibli sore la. Ahmadou Mbacke. yàlla jagal. tey sunu waaji. bu yàlla yaa ba saa xaalim defar lu leen. Modou Mbacke min sani kër. Ahmadou Mbacke. li fi njëriñ. mooy sunu waaji. magal gi gàmmu keeg ngàllu xasile. Modou Mbacke ibli sore. Ahmadou Mbacke. yàlla jagal. sunu waaji.

sabu leen. waaw sama ji door naa ñu bëggalee. waaw ma déggal naa la. waaw ma jëm ci bisu dee. waaw yaa ñu sabu leen. waaw sama ji door naa ñu bëggalee. ale. tarex ba mooy. waaw ama jëse. bu leen. waaw sabal gi doon naa ñu wéralee. jaayante ka waral. waaw dëggam ko jur sa jàmm jee. gaa yi fa bu leen. waaw sabal gi doon naa ñu dem gi cant la. fa bu leen. waaw sabal gi doon naa ñu magal gi ñu murid bi taxaw magal la jëfal ko magal dëgg daa gi. ndeke mooy suñu métier. yor yor gi ndeke la. te jël bamb yu yàlla jël jëfandoo ga. ndeke mooy suñu métier. kuy way na ko may. kuy jàng nga teral na bis bi bisu xeet la. ndeke mooy suñu métier. gan yi ñëpp na bekk. bu xeet ci seen amul njaay bu mbalaak sëy. dalam wawa maglak pantilo kilim do bumangke ete boy sine gen ne ki dalam maglak pantilo kilim do bumangke ete boy sunu bette ki de fi ñew xam nga ni dara man tay jërëjëf ñu leen di bëgg maa ngi leen di way di naan ci bëgg ah ma ne ko dara maa ngi leen di way di naan di bëgg jërëjëf sunu Thank you.